ginnaaw njiiti réew bi fi nekk dañuy dem seeti ji ka fi nekkoon ndem si yàlla si His Excellency uh, former président Saadaara Kairaba Jawara uh, moom nag uh, ñu ne ràññee nañ taxawaayam ñu daal di yëkkati ab raaya nag jox ko ko jox ko li nga xam ne nag moom mooy njabootam bi nee na ndaxte nag nee nañ. moom jox nañ ko ECOWAS Prize raaya boo xam ne waa ECOWAS ñoo koy kati daal di ko koy jox ngir taxawaay yi nga xam ne am na ko eh, ci ba muy dund nag eh, fii ci tund ECOWAS ak yi tamit ci àdduna war nga moom dafa nekk koo xam ne dafay dox jàmm waaye tamit lépp lu aju ci wàllu lii di kaaraange loolu tamit dafa ne ci kilifte fam yam ndax bu mu doon jiite li nga xam ci doon dox bu baax baax mbokk yi bi nga xam ne moom moo bàyyi ko ci ECOWAS Sir Jawara ràññeel nañ ko ci taawaay bi nga xamee nag moom la am ci wàllu doxam jàmm ak kaaraange fii ci sous-région bi di ECOWAS loolu nag mu doon ab dogal boo xam ne ECOWAS nag seen kilifa yi ñoom ñoo ko daal di def ndax ñu ne Jawara bu mooy doon li nga xamee nag moom mooy ci amaan bi jiite woon ak head of state mooy mi jiite woon kilifa réew yi nga xam ne nag ñoom ñoo nekkoon fi fële ca tund ECOWAS diggante 1989 ba 1990 1991 ba 1992 see lañ sos nag ECOMOG ECOMOG nag li waral ñu daal di koy sos. moom mooy pour saxal jàmm ca Liberia Sierra Leone ci atum 1990 yi. nem si yàlla si Sadara Karaba Jawara mi jiite woon réew Gambia woon nañ ko bu baax a baax ci taxawaayam ci wàccee boppam ci ku doon ni koo xam ne jafewul benn yoon ak it mbokk yaa bi nga xam ne moom la daan faral di dox. ak personnalité bi nga xam nag moom la daal di amoon mu doonoon loo xam ne dañ ko ràññee woon si li mu doon li nga xam ne nag moom moo di kilifa mu doon taxaw tamit ci lépp lu aju ci wàllu di démocratie ak liy saxal tamit àq ak yelleefu doomu aadama tawaay bi nga xam ne nag am na ko tamit ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama nee nañ loolu tax na ba ñu ràññee bu baax a baax ba ñu waral tamit ñu sos kuréel gi ñuy ooxee African Commission on Human Rights and People's Rights in the Gambia goo xam ne mu ngi aju ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama yi fii ci biir réew mi Sir Dawda Kairaba Jawara jàpp dafa nekkoon nit loolee ECOWAS Founding Treaty bi ñaar fukki fan yi ak juróom-ñette ci wéru mai bokk na si ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nasoon pexe booba ba loolu mun a sotti mata na raaya bi nga xam ne nag ñu ngi ko koy jox ci ginnaawam nag nee nañ soxnaam leen njaay jawara moo ko daal di jot ci gunge bi nga xam ne ñaari doomam yi nag ñu ngi ko ko gunge ànd ak moom di Mr Dawda Jawara di Mr Dawda Kairaba Jawara ak Mr Ibrahima Jawara waaye nag moom kilifa bi nga xam ne dafa jiite woon réew Gambia di président Jawara moom ngi faatu ci wéru agost atum 2019 ndax nekkoon na président depuis ci atu atum 1970 dana jamono bi nga xam ne Gambia nag dañoo amoon républican constitution euh, gannaaw bi nga xam ne jamono jooju tubaab yi nag ñoo yoroon li nga xam ne nag moom mooy réew Gambia Jawara amoon na coup boo xam ne muccoon na ko ci atu atum 1981 ci ndimbalu ñii di Sénégal ñi nga xam ne dañoo demoon ba ànd ba sos li ñoo ooyee Sénégambia confédération bi ci diggante 1981 ba 1989 Jawara nag ñu ngi fàqat nguuram ci weeru julaay atum 1994 ci military coup d'état bi nga xam ne ku ko jiite woon nag mooy capitaine colonel Yaya Jammeh Jawara ak njabootam bi nag si lañ leen may ñu dëkk foofu la ca lii di Sénégal si asylum ginnaaw foofu si lañ dem fële ca lii di London waaye ci atum 2001 Jammeh nag si la ko may mu dellusiwaat fii ci biiru Gambia ak njabootam bi mu dëkk file amaana Jawara di daan wax ci wàllu politique dara waaye nag dafa nekkoon koo xam ne lépp lu ajoon ci wàllu lii di région bi ci boppam liggéeyam mu ngi ci woon eh, loolu nag mu doon loo xam ne dañ ko ràññe woon bu baax a baax Omar Tunkara Star TV News